Adja bonjour madame. bonjour monsieur. vous connaissez comment. le Camille. Camille Babacar. enchanté le Sénégal va jouer avec euh, avec Cameroun. Qu'est-ce oui. que vous voyez comme, comme, comme, comme qu'est-ce que vous voyez comment vous voyez ces matchs Bah écoutez, moi j'y crois parce que le Sénégal se débrouille, euh, se débrouille très bien. Mhm. Euh, ils s'y connaissent dans ce qu'ils font, donc euh, j'y crois dur comme fer. Et allez le Sénégal. Hein. Pensez-vous qu'il va, il va gagner Bien sûr que oui. Combien de buts Croire. Hum... 2-1. 2-1 pour le Sénégal. Qui, qui va marquer euh, Je dirais Sadio Mané et, euh, et après, euh, je ne sais pas trop. Mm -hmm. Mais je crois en Sadio Mané, ah, déjà. Et, et, et va marquer le premier but hmm, Peut-être plus le deuxième. Le deuxième but Ouais. Euh, le classement, quel classement faites euh, par rapport à nous, à Cameroun 4-4-2, 1-6-1, quel classement voyez-vous Je sais pas. Je <laughs> sais pas. Mais en tout cas, Sénégal va gagner, Inch'Allah. Ah oui, j'y crois, Inch'Allah. On va de 2-1. Oui. C'est promis. on y croit. Euh, j'espère, j'y crois en tout cas. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah. <laughs> Merci à vous. Et surtout, salam Sénégal, mal le Ndoy. Cheikh Sénégal, il faut des Cameroun d'ailleurs. Mhm. Ah, mais, ñaanal Sénégal mu gagné rek. Sénégal mu gagné rek. parce que première prestation bi on a pas grand chose à dire on ne peut qu'apprécier donc nañu ñaanal yàlla Sénégal gagné rek. Cheikh nga nekk en sportif xam nga ne Cameroun ñun ak moom 32 ans ñu daje ñun ak moom mhm. a génn tey. ah mais ku mënul dóor amul Sénégal bi na xol yi booloo rek. ne à bi lay doon. ah mais c'est normal c'est deux grandes nations c'est deux grandes donc. Euh, c'est tout à fait normal nous faisons partie des grands d'Afrique Cameroun mu ngi ci cinquième étoile puis aussi on peut dire que ce sont des lions blessés seen dernière sortie bi avec la Guinée donc mënul yomb Sénégal mënatul am match bu yomb c'est impossible mënatul am match bu yomb. waaw <laughs> je pense que nag Cameroun moo gën a am pour euh, pour pour ut dara Cameroun moo gën a am pour ut dara donc euh, euh et déjà à l'esprit que. tous les matchs du Sénégal sont une finale et donc une finale il faut la gagner Sénégal na ñëw poser dal amul lu ñuy jàng ci kenn doxal li ñu doxal le plus important c'est de mouiller le maillot. en tant que sportif ban doxal contre Ghana na ko war a teg ba xam bu ko tegee bii kat Sénégal war na mën génn contre Cameroun. mais on ne une équipe qui gagne. il doit reconduire la le classement que le match précédent. oui. non je pense que ni waaw pour premier mi-temps bi daal mën na teg lu mu tegaatoon quoi. mu xool et je pense que nous souhaitons que Sadio Sadio nous revienne très vite le Sadio qu'on connaissait je pense que bu ñëwee rek ak yàlla mën na seef jàmm quoi. na place bu Gana jël na place bu Matar Sarr na yàgg ngeen loo aussi unifié non mënul indi faay parce que ni hiérarchie noonu la hiérarchie il faut am jeune génération bu ñëw booster leen. Gana mine de rien a fait 13 ans en équipe nationale donc je pense que ni ñoom ñëpp aujourd'hui mooy Gana muy Sadio ñoom ñëpp ils doivent se mettre aujourd'hui l'idée en tête de préparer la retraite xale yi ñëw baax na. comme buy passé rek. mooy ñaata. bi c'est bon 4 4 2 c'est bon je pense que ni bu ñu ko defee rek yàlla baax na ah. ñan ñan nga war a yan bonus bi. bon une équipe comme Cameroun bu ñu ci amee 1 <laughs> ñu ngi Sénégal football tey noo ko ah, xanaa di kontaan rek ak xaw a stressé tuuti rek <laughs> mais c'est normal. <laughs> non pression pression bi la rek. ah di leen ñaanal nag di ñaanal waa Sénégal bu baax a baax ndax am nañu confiance ci ñoom Aliou Cissé mi ngi def liggéey bu am maanaa di leen ñaanal yàlla may leen ndam. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. na nga ah xanaa yaakaar naa Sénégal dina dóor lu bari de. ah waaw <laughs> man joxe naa 4-0. non Sadio moom même bu dugalul sax mi ngi liggéey lu rafet. waaw mm-hmm. ah tuuti ñaanal tamit suñu joueur bu bees bi. Lamine kamara waaw mi ngi def lu lu doy waar. Mm-hmm. waaw Elimane aussi macha allah. waaw yàlla baax na daal. waaw teg axe bu baax rek. waaw ñu ñu jouer collectif rek. waaw ku ne di paas sa morom mu rafet rek incha allah yàlla dinañ may ndam incha allah. bi mooy troisième euh, bi mooy trente-deuxième fois ñuy daje. waaw incha allah Aliou Cissé indi na beneen tactique de jeu. boo xamante ne moom gëm naa ne Sénégal incha allah cette fois ci moom dina ci génn. am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. non je lay deme incha allah. 4-2 lay lay waaw Sénégal mën na am 4 Cameroun am 2. allah waaw. ah on leur faire confiance daal di leen ñaanal bu baax a baax a baax. kon tey la. waaw. final bu ndaw la. merci. <laughs> tur ah, waaw salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. tur bi maa ngi tudd Lamine Diop. Ah, maa ngi liggéey fii ci mais blanche mais noir. ah man de gis naa vraiment victoire. waaw man daal li yooyu li ma leen di ñaax mooy. nañ gën a fas jom rek. waaw ñamee indi indi tactique à la euh, Real Madrid waaw maanaam ñeme ko bëgg ko donc daal man gis naan daal loolu xaw nañoo manqué tuuti ci équipe bi daal par rapport ak match euh, contre Gambie là euh, j'ai vu vraiment un jeu vraiment très lent gis naa benn jeu boo xam ne daal amul rapidité bon euh, peut-être que bu kii duggee là comment dirais-je là notre notre Messi là comment il s'appelait encore là Non, c'est pas Bambadien, le plus clair là, qui celui qui a le plus. Ouais, Ilman Ndiaye, quand, quand, bon, bon, Boumoudougel, vraiment, il a un changement quoi. Franchement, il a fait un beau match, Ilman Et puis, euh, à moment-là, on a vu vraiment une football vraiment un peu rapide. Mais pendant la première période là, vraiment, c'était trop lent. C'était trop lent. Hmm. parce que euh, en fait yéen ku xam camerounais yi xam ne ñoom macha allah ay jàmbaar lañu ay bañkat lañu donc ñun tey dañoo war a wane suñu bopp xam ne ñun ñi tey match bi lu mu ñu jaral. indi indi vraiment rigueur rigueur mooy gañ a match bi tey ah rigueur mooy gañ a match bi instant yi Cameroun bu ñu eggee suñu kaw rek ñun mooy yàq ñàkk nañu match bi moom tey moom rigueur tey bu ñu xoolee tey potentialité yu Sénégal am wax dëgg yàlla Coupe d'Afrique bi tey on peut dire que ni tey ñoom bu ñu gëmee suñu bopp tey ñun final bi incha allah dañ koy jëlaat ci kàttanu suñu borom non ñun la ñu tàmm xam rek 4 4 2 rek 4 4 rek ah ah. waaw man moom moom moom mooy mooy suñu mëneef ñun. bële paase Lamine Camara neexoon na ko ndax yaa ngi. non Lamine Camara moom moom vraiment yàlla na ko cat yàlla na ko cat seexlu quoi. kooku booy boobu am na jom. non dafa war a démarrer. kooku booy bu du toog du jour toog ban moom dafa war di démarrer. Gana Gueye na xaar Gana Gueye Gana Gueye na xaar. Pape Matar Sarr na xaar. parce que tamit aussi Pape Matar saar aussi on a besoin de lui. parce que vraiment euh, dans son club euh, Tottenham mi ngay toj foofu. ma koy toj bu baax ba ci dernier match sam sax il a marqué. keroog suñu bête noire dana yaakaar nga ni tey jii woon woon ci mën lu woon woon na instant yi gis nañu Sénégal bu bees tàq. Sénégal bu bees tàq la ñu gis. te incha allah xoolal dañuy gagné ci kàttanu yàlla. non est ce que est ce que est du doon 2-1 sax. man daal loolu laa gis quoi. mais yàlla baax na. jaajëf waay jaajëf. salaamaaleykum. Euh, maaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi naka la. Euh, Amadou Diallo. Sénégal di fubal ak ki nga xam ne mooy Cameroun nan ko gisee papa. Euh, nous allons battre le Cameroun. Mhm. par trois buts à deux. wala non nous allons battre le Cameroun le Cameroun on est jeunes vieux. ah et le Cameroun est dos au mur. nous allons les battre. naka yaa ngi Pape Cameroun dina yomb tey. du yomb. mais je sais bien que j'ai confiance aux gosses. Mhm. par classement bi noo ko joxe tey classement bi. ah classement bi euh, Aliou Cissé comme euh, contre la li ko tegee rek ça ne poserait pas de problème. Mhm. waaw gis nañu eh, eh, ne mooy mu ngi def lu am solo ci équipe nationale ndax yaa ngi ne war naa mën démarrage wala da toogaat bi daan xaar ki xam ne mooy Gana Gueye. Euh, je crois que Gana sera partant. ok kon daal dañuy gañ tey. non tey jii du ñu gañ lu tey tey moom fête la. Ah. tey moom fête ok Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal merci beaucoup